ñun nag ndaw département de Kër Massar nekk ay ndaw nekk ay jigéen chaque jour ñi ngi ci sur le terrain di jàppale son excellence depuis Dekkal Ngor ñi ngi ci parti bi ñun moom la ñuy àndal tey moom la ñuy àndal suba son excellence fu mu ñu joxoñ foofu la ñuy dem kon tey joxoñ nañu monsieur Amadou Ba te ñi ngi ñaan yàlla mu nekk la cinquième président du Sénégal donc ci loolu ñu ci ànd ak suñu naataangoo honorable amee Amel Top mu ñuy jàppale bu baax nag parce que nekk na koo xamante ne mi ngi dem différents euh, département en tout cas elle est nationale donc ñun fii suñu département jigéen ñi tey ñoo boole seeni i dërëm seen i ñaar dërëm di ko boole pour liggéey àndandoor gagner les les élections à venir. alors donc Calobas euh, euh, bi ngeen di lancé tey loolu ndax dafa am li taxoon tamit ngeen di lancé Calobas yooyu loolu pour lan wàllum jigéen yi tamit waaw loolu moom pour dimbalante la parce que ku xam jigéen xam ko ci liggéey ku xam jigéen xam ko ci jàmbaarte donc ñun moom xaara ñu kenn ci dara li ñu bëgg daal mooy ñu gën ñu jox suñu gët leneen li mooy département de Kër Massar comme département la comme département yëpp bëggoon nañ tamit ñu gëstuñu parce que nag. xam nañ la poids démographique du du Kër Massar donc nag war nañoo mën a jàppale ñu ndax Kër Massar amul ministre Kër Massar amul DG Kër Massar amul PCA donc nag bëgg nañ tey jii ñu dooleel suñu responsable ngir suñu responsable mën ñoo dooleel ñun fi mu toll ni nag pare nañ taxaw nañ tem engagé nañ démb ak barki démb tey soog a ñëw li ñuy xaar nag mooy lan. ñu dooleel ñu ngir campagne yi ku xam campagne nag xam ne campagne doolee koy def campagne moyen koy def nañ ñu dooleel ñun jeunesse féminine département de Kër Massar ngir ñu mën a campagne campagne bu mucc ayib ñu faire gagner son excellence monsieur Amadou Ba. jigéen yi ndax am nañu ay jafe-jafe surtout ci wàllum financement yi ak projet yi loolu tamit ban taxawaay ngeen ci am. waa ñun lu ñu gis mooy chaque jour femmes yi maanaam maires yi la gën di financer mais ndaw ñu toll ni ñun financement yi yegg see gut donte day amoon ay pàcc-pàcc yu commencé ñëw mais bëggoon nañ tey mu gën a dugg ci département de Kër Massar ndax ndaw yi ngeen gis tey jii ay jàmbaar lañ dekkal ngor ba tey lañ nekk ci parti bi di daw di daanu di boole seen i dërëm seen i ñaar dërëm bëgg nag son excellence Macky Sall fu ñu joxoon comme ni ma ko waxee sànq fa la ñuy dem donc nag jamono jii ñu ngi jublu ci ay élection bëggoon nañ ñun ñu campagne nañ ñu jox ay mooy de campagne la jeunesse féminine département de Kër Massar ngir ñu campagne ndax ñu ngi def euh, ñu ngi def les six communes chaque jour suñuy moyen du kenn ku ñu jàppale à à à moins certains responsables yoo xam ne ci département bi tamit wax dëgg yàlla def nañ seen participation mais ñun wàcc ñu terrain bi instant bi moom gagné rek la ñuy xool nañ ñu dooleel ngir ñu mën a bañ a les élections à venir.